C'est ça. Avant de, répondre à la question, là, je dois dire que mon frère, euh, vraiment, les jeunes ne sont, pas inconscients, mais sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Je euh, le chef, euh, le chef, notre chef Ousmane Sonko, et il est le capitaine même du Sénégal. Georges Loli il est le capitaine du Sénégal. comme quoi ah. comme quoi il est le capitaine du Sénégal. Yalla rek moko tek fofu ken kenn mun ci dara. non non ken mun ci dara. xam nga xam nga xam nga buñ démé jusqu'à la fin jusqu'à la fin ñu xol. ñu xol tay buma défé ni nii man Ousmane Sonko la. ah Boy yëpp ñoy ñëw ci man. ah l'épreuve est né que le 8 mars. wax la ko je ne sais pas si tu étais au courant de ça Buñ ndikkee sama koñ dama né ah le coordinateur se lève pour faire le 8 mars pour les femmes que ce soit de Beno, que ce soit de Pastef venez ñan ñoo venus. Les yi ñoo fa fait a fees jeeg yi ak jeunes yi les filles là ñoom yëpp ñoo parce que c'est le coordinateur de Pastef selon le coordinateur de Ficelle je crois Je hein? xam naa ne cinq moo ko pour junj tout tuuti rek <laughs> mais mais pour te dire pour te dire le chef bandit le chef bandit moo je boo ko hein, ça me triste de trop

dafa ne cocktail Molotov yooyu Ousmane Sonko moo ko yëkkati naan booy dem leen taal fan la ko waxee ak fan man si j'étais dans ce plateau je vais dem kay ne défirma euh, kii da da ngay da ngay euh, waaye indi ay preuve épreuve yooyu nga teg ko ci table bi nga won ma man man tant que gisuma je ne vais pas avancer à ces mots donc beneen bi mooy hmm, ñun tey Ousmane Sonko c'est le c'est le monsieur le maire de Ziguinchor maa ngi fàttaleeku nag ba Ablaye Balde en ce moment lycée Djignabo la commencé woon au niveau de Ziguinchor ñun ñoko ko di jël damay jël ay table ak ay banc di dem té gouvernance di bale gouvernance wax naa la ko nest pas di bale gouvernance loolu ça m'a beaucoup marqué parce que lu mu woote ba tay gàcce jaalama il a bien travaillé defna ay pavage mais ñun ñoko ko e, exiger man mii je faisais partie des gens qui disaient que bo ci falon koloban suñu koloban Ziguinchor bo fa égué sen tank dañ lay doo texte teg parce que ñu ñoo mais avec Sonko avec les les les outils bu moi, on jël pour liggéey à la mairie dis ce ba tey gis nga récemment am na yeneen manifestant ñoo xamante ne seen parti la ñu bokk dañu yëkkati yoon ñu ne Ousmane Sonko moo leen jox leen xawma seen xaalis affaire yooyu du ma ko baalaal na j'étais là-bas tout le temps je voyage léegi pour te dire que loolu yëpp c'est des manigances yoo xamante ne ñoom dañuy manipuler la conscience de de la population sénégalaise pour ñu naan waa tout le temps ñu ngi andi fitne yaa ngi gis ah alors que ça c'est pas normal nit bu nekkee di liggéey en tant que monsieur le maire bàyyi leen ko jàmm ak salaam. par rapport également à la troisième candidature. la troisième candidature F24 lu muy waxee noonu nous sommes bien soudés. yeewi ba tey kàngam yi nekk ci kaw ba nous sommes soudés. non non non Khalifa yako ko Mané, groupe whatsapp ak fu ñu toogee nii di waxtaan ah, loolu lay wax ni plateau bi su doon ah, moom mooy Ousmane Sonko man ma euh, Khalifa sal. ah walla keneen ak keneen ni toog ni naan waaw Eric ya wala ya def nii walla Cheikh yaa def

wala si je ne mens pas dafa neewoon waa dañ koy déloger Mame Mbaye Niang moom ci boppam j'ai recherché des des des des des vidéos ba nga xamante ne Mame Mbaye Niang dafa dem escalade uniquement à l'Assemblée nationale pour ça hein? jàppale Ousmane kii Macky Sall même ça man fan pro Ousmane qui Macky Sall la woon 2011 maa ngi fàttali bu mu ñëw noonu j'ai fait de tout ma jox ko au niveau de kii dama ko jox et je ne signifiais de rien du tout mais pour te dire que parce que mon injustice dama président Macky Sall 2011 a eu un flambeau l'émergence de Sénégal mais à nos jours nous voyons pas ce qu'il est en train de faire ce que 2000 euh, euh, euh, article 24 article 27 le mois ni le droit de faire voilà donc